lan lan ngay calcul lan mooy sa yoon ci feebar nan ñu ko wax lan yow amoo amoo benn xalaat boo xamante ni war nga koo calcul sa diggante ak Serigne Touba Serigne Touba amul calcul amul amul sikki sàkka déedéet Amadou newul foofu ñun gëmuñu Serigne Touba ci xel wala ci ay xalaat déedéet Serigne Touba ci suñ xol maanaam xamuñu fu mu nekk ñun suñ xol moo yëg Serigne Touba su ko xasee boo ko yëg amut loolu mën a xoymatal wala loolu mën a xoqutal déedéet ñun Serigne Touba rek. suñ dundee baax na buñ dee baax na buñ defee safaanu ajjana baax na buñ demee ajjana baax na ñun Serigne Touba lañu bëgg barke Cheikh Ibrahima Fall amuñu geneen kalkin wala genn xalaat gu lay kalkin bat naan dañ na xoxotale lan la ñuy xoxotale feebar man waxuma na naan leen feebar baa nga fa wala néew fa waxuma loolu waaye ñun suñ diggante ak Serigne Touba moo amul kalkin barke Cheikh Ibrahima Fall na mu wakkirlu woon ci boromam ba nga xam ni amul bakkanam bi lum ci lum ci nam wala lum ci bëgg ndax woo nañ ko Ahmadou bërëb bu neexa jaamu yalla ngi way yalla giñ ci tuddu bu jaamu yalla ngi kay ki tok mu xam ne ay wara ci ne mu ag tok yegg suuf tanu ci bir kamb gi ñu mërmëral ko gaaw sun ko ci bir kamb ko xamanteni ni wakkirlu mu tollon digënté mak boromam ñun fofu lañ tollu sun digënté ak cheikhul khadim amunu lu nu jaam mëna xoxotalé du febar du du dé du bakkan du du du dara suñu diggante ak Serigne Touba dara du ci dox barke Cheikh Ibrahima Fall dundu màggali dee màggali lan la jaan yoo xam am nga ne ñoo xamante ne lan lay wax da ngay dégg ñu naan eh, eh, eh, Barça wala Barsaq comme comme àddunaa leen ko yaral Barça wala Barsaq day faatu ci géej gi di dem di lab seen bakkan la ñuy jaayante te ñun bu nu fàtte ni bi ñuy jébbalu ci moom dañ koo wax ne ko bu ñuy dund ak bu ñuy dee yaa nii moom maam Bamba yaa nii moom kooku ñu wax loolu day dëgg ci ñun duñ moytu feebar. بالله الذي لا اله الا هو ام لي ньо خامتاني جاب نان بو فيكون بو اغي توبا لال جمعة دي فاتو باكي شيخ ابراهيم فال دي نان اغ زياره لال جمعة دي فاتو سن توبا لين كو جار ناخ نيوم سن دوند كيب لين جي نيان موي دوند سي سن توبا دي سن توبا دك سي سن توبا نيوم لول لا ني بك لول لا ني ييك واو لولو مو خاصا نيك سي سن ديمبي لكن نك لولو نيك سي سن ديمبي دنجي ام كالكي ني نيو خوتال اي فيبر دو غنا توبا مورو مورو na na dugg touba sak magal guy ñew ñu am luñ ñu xoko dalé duñ sonn duñ tàyyi waaye ñun duñ sonn ñu nit duñ tàyyi ñoom ginnaaw ñoom ñoo xamul ci leen ne ñun xam nañ ci leen ne sëñ Tuubaa lañ gëm barki Seex Ibrahima Fall amuñu sikki sàkka déedéet sikki sàkka ci sëriñ déedéet la ko yàlla jaraloon ba mu naan nafsi wa diini suma ahli walwal wa maskani lakka wa di ak awat kooku jaayante lépp ci addunaam ngir boroomam di liggéey rasulullahi dammi wa ahli wa awlaadi nga xam ni léppam yaramam dundam dekkeem léppam da koo joxoon rasulullahi ñun foofu lañu nekk suñu diggante ak xaddim rasulullahi foofu lañ ne sëñ Tuubaa ñu gënal suñuy jëm ndax nit ki daa amul lu boppam te loo gën a bëgg la koy jaayantee li nga gën a bëgg ñun suñ jëmm lañ am moom lañu jox Ahmadu Bamba moytuñu ko ci faat déedéet ndax moom boroomam lenu jàpp mooy ñun yàlla dañoo fay sëñ Tuubaa loolu lañ bëgg léegi nag ni ñu koy sigilale mooy mel ni ko neex ñun amuñu calcul ci sëriñ bu nuy dund ak bu nuy dee yaanu yi moom mam bamba yaanu yi moom loolu lañ jaayante suñu diggante ak moom moo tax dara doxu ci boo ci bëgg boo ci bëggee taxaw nag yow barke Cheikh Ibrahima Fall bu sëriñ mun taxaa ni woon ay bopp la soxla yow ci sa ginnaaw jàpp nga ne moo war a dagg sa bopp yëg ko ndax calcul nga ne amul xaru daga naag dagam yow li jëntiwoo loolu sëriñ bee soxla bopp rek yow jox nga ko sa bopp pare nga ca noppi nga ci leneen niwu suñu diggante ak sëriñ Tuubaa foofu lañ ne barke Cheikh Ibrahima Fall amul calcul buñ fa demoon faatu feebar bi dugg nu fierté la xoolal foofa ngay gisee nag bu boobaa ku feebar di dëkk di kontaan di rek di loxo barki Cheikh Ibrahima Fall ngir lan Sëñ Tuubaa mi mu doon sàkku si ba xam ni moom ci la fas yéenee faatu loolu dara du ko dàq ci xolam amut lu koy gënal loolu dégg Sëñ Tuubaa loolu ni mu neexee loolu la ñuy sàkku kon ñun ay feebar dañoo tey dem màggali nan fa dem laal sooroor bi faatu te ma leen wax léegi rek wat naa ko ci jëmmi Cheikh Ibrahima Fall Serigne Mountakha bu ko neexoon kenn du wopp kenn du faatu kenn du rakk accident sax dara du am dara du am ñëpp ñëw màggal si jàmm dellu ci salaam waaye moom coobaree boromam ca lay dox coobaree boromam ca lay dox lu yàlla def rek neex na ko ndax lu mën a xew feebar bii sans ma ko wàccee kon la mu waxoon rek la Amadou waxoon rek foofee rek lay dox la Amadou waxoon foofee lay dox. lu saa borom dugal ci jëmmi jaam ñi rek moom neex na ko ndax Cheikh Ibrahima Fall nee na ku jëm fu dara lu doy loo yor na ko xeet yow mal xiyam lan jëm waaw dara du fa ndax dund guy wéy la ilaa yawmil abad ku jëm nag dara dul doy loo yor na ko xeet foofu lañ nekk nekkuñu fi ñun suñ sëriñ taxawatul ci wala ay baatin wala ay kiraama déedéet nekkatuñu foofu ñun dañoo xam ne ëllëg yawmal xiyam lañ jëm barke Cheikh Ibrahima Fall te foofa dara du fa doy foofu lañ bëgg liggéeyale sëriñ Tuubaa waaye wana ay baatin nag di wax loolu ngeen bëgg sëriñ bi génn kenn dara du dal kenn ñëw leen màggal si ak salaam ak jàmm dox suñ diggante ak suñ borom fa nga feebar bi yóbbu ko déedéet moom boromam la bëgg waaw jaam la buy sàkku ngërëmal boromam waaw njëkkalal boromam moom lay sàkku wax na leen ko ngeen déggu ko léegi nag kon kooku da koy bàyyee ak sa bopp lu mu dogal ci jaam ñi rek da lay neex foofu la sëriñ Mountakha nekk waaw foofu la nekk léegi kon li li li li war a jàpp. mooy feebar du ñu tee dem màggali Touba barki Cheikh Ibrahima Fall xam nga daaw jéeg wax def naa ci vidéo di ko làkk ay naar ba naari naan ma li ngay wax lu mu doon mën naa leen xadim rasul doomam junuy wax saahidul fadala anal fadailu muy ngëneel la nekkoon ca yàlla la jël moom yàlla jox ko xadim rasul doomam joojee nag di leeram googee mooy mooy ñëw dun yaa moom la ñuy màggal banaar yi dima laaj la am na ñu bari ci lañu xam te xanaa sax yow sëñ sëñ Fallou koo mën a doon waxuma la nga doon jullit wa muy boo mën a doon barke Cheikh Ibrahima Fall bis jot na sëñ Fallu dimbali la ndax woo nga ko ba tey mu ñëw dimbali si la ak ku mën a doon sa sëriñ nag woo nga sëñ Fallu mu ñëw fekk si la waa léegi loolu loolu léegi kay kon kon kon nañ nañ nañ nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel xam liñ doon xam ñun ñooy kan xam fan lañ dëkk xam fan lañ jëm Ahmadu lañuy yëg ñoo yëg leneen moom lañ bëgg moom rek moom doy na calcul nu naan sawara nii wala àjjana nii gànna foofu la rawee waxtaankat yi barki Cheikh Ibrahima Fall foofu la rawee waxtaankat yi ndax li muy wax doo koy gëm am na ñoo xam ne lii wax Sëñ Tuubaa seen bopp ñoom ñu koy wax sax gëmuñu ko kon yow ki nga koy wax nan la koy gëmee yaa njëkk a weddi sa bopp yaa njëkk a weddi sa bopp moom foofu la ne maam buñ dee woon Sëñ Tuubaa baax na amuñu calcul ci sëriñ bi Cheikh Ibrahima Fall àjjana crédit yi ku ko jékki dem sawara fii ku ko jékki def ne mu ne ko Mbàkke man yow laa bëgg waaw la lu ma ciy bëgg ci sa war a ci am la lu ma ciy ragal waa léegi kon man yow laa bëgg foo ne ma fekk jaayante googu lañ taxawal ndax mooy miftaaxu baabul muridiina wax naa leen ko mooy caabi yoon yi mooy buntu yoon yi kon na ma jëriñu ci moom ngay jaar loolu nag ñun noonu noonu nga xamante ni bëgg leen Ibrahima Fall ngir li ma bëgg ngir Pastef googee moom la ñu Ahmadu joxoñ te muy dëgg kon moo tax ñun moytuwuñu Sëñ Tuubaa ci ay feebar déedéet mooy moytuwuñu ko feebar dunu tee màggali choléra ak sida ak lu mën doon wat naa ko jëmmi seexul xaddim gën tee wuy ji waaw woote bu sëriñ bi woote bu doon ku dem faatu ñëppay dee waaw kuy murit da dee doo dund barke alxuraanul karim loolu lañ gëm waxuñu ko ngir propagande kenn déedéet ñun li ñuy yëg suñu xol xamuñu ko xamuñ xamuñu lan la lan la ñuy yëg fan la sëñ Tuubaa nekk ci ñun lan lañ ko defal koo xamante ni loo jël ba ko ko sant muy alalam ba ko waajoxoon lu ma jël bëgg la koo sant muy sa alal mbakke ba ci mbub mi ma sol ni traite mbub mi xotti waa léegi kooku waa léegi gëm-gëm boobu ñun lañ war a mën a am suñ diggante ak sëriñ bi fa lañ taxaw ñun sëñ Tuubaa amuñu calcul yàlla dañoo bind ñu de ay jaamam fas yéene koo jaamu foofu lañu ne waaye bëgg gi ak yëg gi sëñ Tuubaa la ñuy yëg ci moom lañ bëgg dund ci moom lañ bëgg a faatu ci moom lañ bëgg a dee. di gànnaaw ne wax naan noppi na ak su noon doxal nel mottu tabbi sawara sawara laa jëm te xam ne sëñ Tuubaa wàccoo na ak man waaye sëñ Tuubaa wàccoo na ak keneen ku dul moom barke alxuraanu karim daa mën a wax nit ñi di ko dégg waaye sëñ Tuubaa wàccoo na keneen ku dul moom waaw fa gaa ñi gën a gëmee leneen foofa lañ war a mën a taxaw gën a gëm sëriñ Tuubaa gën koo jaayante gën koo bëgg gën koo jàpp amuñu kalkañ suñu diggante ak sëriñ Tuubaa barke Seex Ibrahima Fall dund ak deew ak dekkeek dem sawaraak amut lu ciy dox suñu diggante ak sëriñ bi waaw faatu du ci dox maanaam dee doxu ci torox doxu ci maanaam amuñu calcul loolu ñu tegal suñu diggante ak Serigne Touba ne buñ ca àggee loolu dal ñu ñun dinañ ci yegg pas-pas boobu la ñu am suñu diggante ak sëriñ Touba leneen leneen leneen doxu ci barke alxuraan waaw heure boo jàppee ne am na lu dox suñu diggante ak Serigne Touba nax nga sa bopp li ñuy yëg xamuñu fu mu ne xamuñu ko alxuraan xamuñu fu fu fan fan.